asalaamaaleykum. mais nan la baay yaa ñu tere doo ci laasoo. di baarama. xam ngeen sëriñ xam na lum leen di boori dafay moom si di baaraam na ne buuri dafay bi roote mulkum barakoo rakol bangi pose soodaan si di baaraam na ne wurgi alaw wode masamaawe suti juróom ñaar rakol bangi pose soodaan sidi baaraam maa nay nguur yàlla nguur a dàq yam fasiq ba ca ruum ministre ba ñëw na solaan sidi baaraam maa nay batu banque képp ku fa dem ni ci mbiram yàlla baraam fa garde kiimaan sidi baaraam maa na la di yëngu ca biir daj woowu ak sa xar si mooy fi ministre ba nga ba woon ma si bi xaaram nasaraan bee dina rëy xaatir te bëri lu dafay muslu seeti walkaam si bi xaaram fale ko su fee xam gana ko fi li adi mun ko si ma ne ba xaabil rek xaabil baraama nangoon gannaay la mon bu mag be tamu nga mbaal sidi looram ma ne baraama sa ndongo yërëm gàddaay nguur ak dàq yaanu aji perse yàgg nay bañ sidi looram ma ne dàq yaanu kenn leen sandwich daleen buggoon lool gaañe fer ba jur na gàddaay sidi looram ma ne gaaña dal di génn gàddaay tàbbi ca xalam romba togga jaamu yàlla ak yónneen sidi baara ma ne fekk nañ fa jaamam naar buy sàmm ay xaram noor jàmban leen ana ngeen jëw sidi baara ma ne gaañaa ko naan dañoo bëgg a gàddaay tey ñu génn ruum tey ñu faral yàlla ak yónneen sidi baara ma jaamam naar danga leen kaar leen ma ndax ma ànd ak yéen yéen ñi faag yàlla ñor na lool. siriyaara mara gaaña dal yëg ca ko montagne ma. tabbi sa biir kan ma toog de jaamu yàlla ñor na lool. siriyaara mara barama leen daa docteur waxtu suba ngoon d'abord l'hôpital ma la ko. siriyaara mara garab ga nekkoon ca buntu kan ma. xobam yaa naat garab ga nga gaataan. si biir ma ne garab ga nekkoon ca buntu kan ma doy naa yi ne yàlla gaa nga dee ba def suuf si ma ne gaaña daal di nelaw ñetti téeméer ci biir kan ma Seydi Louga doy na kiimaan si biir baaraam ma ne ba gaaña yow ca buntu kan ma dañoo ngi lay maa leen mbiram doy na kiimaan Sidi Baara man a gaañ kati ba man na leen faral leen ndax si ñelaw ñoo nelaw naan ma de waru na ci yónne Sidi Baara man a gaañ day du manding ma ba ca marsi ruum ñu taxaw da xaaju ci yónne Baara man a gaañ kati ba man na leen faral lu ñu duggee reeru ngoon balaa ñoo dem suñu makkaan sidi baaraam man peesal nañ leen kilo tàndarma jaay leen kilo sukar sidi baaraam man a gaaña daal di génne xaalis ba jox ko Abdallah naan bismillahi dem nañ sidi baaraam man Abdallah daal di seet xaalis ba daal leen wane bile xaalis miinu ma ko Sidi Baara ma ne Sarr ma baal naan di leen xaalis na ngeen ko ndaw ni yow tontu leen ma Sidi Baara ma ne ko naan dañoo gàdda yoon nguur a yaanu wuti kër ca xàll ba romb Sidi Baara ma ne góor ga daal di waaxu kanaa ne gaañal ca tribunal yi réew ma nguur ga daal di leen Sidi Baara ma ne bu baax ngeen naan bi na ngeen def baax ko kenn du baax ngeen nekkoon Sidi ma ne gàññaat ko ba ñëw gàddaay nguur ak dàkk yaa na wuti kër ca àll ma ne góor gaa ngeen naan su ma gën a ràññee ngeen fekk di ngeen nekkoon law li yow koy mu ma gàññaat ko naan mboolem suñu kër ñu nga janoog ñoom ko xànd ak yàlla du tungile maa suñu waaraam maa ne buur baa nga naan jóg leen ba ñu topp di ruum bisu xeroog doy na kiimaan suñu waaraam maa ne gaaña daal di dem ca ab kër fekk fa ab buur buur gaa nga màgg ba bi jaaw suñu waaraam maa ne buur gaa ko naan gile kër bilaay maa ko moom borom kër gaa ngi koy reetaan sibi baaraam maanaam góor gaa ko naan xëy mu dem ba kiidaay ndëkkoon du laaj sama sëbbi maa di tamaam sibi baaraam maanaam góor gaa mu dem ba kiidaay ndëkkoon du laaj sama sëbbi maa di tamaam sibi baaraam maanaam góor suur la ma xaalis coroon tàndarma ga sama sëbbi gis ngeen samba góor gaa ko naan sama baay noon na sama halal li maam ne ca sidi waara ma ne buuru hiitir ba bila kabru daa fi tabax jàngu ay këram di ko sidi waara ma ne buuru sëriñ ba bila kabru daa fi tabax jumaa dafi jàngu yàlla sidi waara ma ne buuru sëriñ ba dal de ca xeex ak yi pour ba bisu keroog doy na kiimaan Sëriñ Baara ma ne buuru sëriñ rey buuru yi pour ba naan ko fasix bi bi la xabru bi fi naan bi juma dafa jaamu rakku samawaati suuf yaa ngi yaa ngi fay sabal Sëriñ Baara ma ne yow mar u ma qaddamat moom la yow mi sabee biir gi sinemaarama bartakun laa yabqiyaani moo do siidi barham nuruda ñëw na soodaan siidi barham ma saxoo leen ak julli te di wir da di wasifa lool fardu jaani moo bi ñëw na moo di barham ma te ñeexal na leen yéen bi ndee bi soppu barahama yéenay dëkkee xeli yi na sibi barahama ku xaw ci digg mandi mar dog la dana séentu dee kala may ndox mooy ka sagataat sibi barahama baleen di koy puro daay ma bu jëb da rikki may sóot daleen gërëm bar mi nen wan sibi barahama xam ni la nga ku la jëkk ko yaay njool Ibra Faal xam ni suñ bàyyi si bi barahama xam ni la nga xamoon ko yaay njool lacca faale ngoya ngi si bi barahama Ibul Juuf ne boo caamel sama makkaan jëm si njawara xaal ba may tourné may hut si bi barahama wala fekk banjul mu ma ne abol faydu fayna sodan sibi barahama sihon manan dintu namman pakku hen mboti mbot bo kaybu jamti sodan sibi barahama ibu jum konkonan bay siiku warma babbakar ba moy ko sen dama kaya santel garba sibi barahama sihon konan kerbu sufle ninja ba bandor mene barilaccoomo garba sidi bara hammo booma laafa boo ñëw suuku Dakar nuuru diinam maa ngi tàccu bagg buy xeb sidi bara hammo ba ñu déggee baatu lay laaba nit ña ba bandoor ne abol koy lu banga ñasen sidi bara hammo mam aji ñas yoonu makkan wa sowel na soodaan wàccee na kibritul lahmar sidi barahama nañ leen gërëm waaja Abdullahi radiyallahu anhu wàcce nuñu siiru kaamil sidi barahama maam aji ñes mbaara ngambang gi bande mag wi yaa ñu traité ci meeya sidi barahama jëljëli xakkaari billaay kenn du sidi baraham biñ ci lim bamburan naa ni sidi barahama nen suuf ba jàpp xayma gaañu si kar leen jëmmi xaarit mbiran bay foor moo di baraxamaam tafsir Omar Kuta ñee naana xam na yombul baay yombi yóbbu xaali ngërëmal si di baraxamaam tafsir Omar Kuta mbitt yem sëyin jaawal leen ko suuf si kursi dana mbër si di baraxamaam jàngu jàngu yàlla ba moo ko booba jànglaañee tafsir Omar Kuta màggal sidi barahama saxaar bu dee lonku ay wagoon beneen gaara tax góorgóorlu leen teew fa gaar ba sidi barahama saxaar bu dee lonku ay wagoon beneen gaara tax góorgóorlu leen teew fa gaar sidi barahama waga waqooma wagoon moo dam maj soppu soppeeku faasix jëmbam maj sopp xol ba faasix sidi barahamma xeexu leen ba set na jug leen bàyyi leen seeni nelaw soldat war ta tappe si seer sidi barahamma soldat bu sey jiyoom ndigalal buur le nga dem su mbaam yàlla yàlla xiir ñu ci njub sidi barahamma soldat bu sey jiyoom ndigalal buur le nga dem ci mbaam yàlla yàlla xiir ñu ci njub sidi Udil arifina ya rabbi marama nadir Man bahendan wari modi Sidi marahama Gaydeng nyologi ya beri tiap ku nadir Sangga nganyu ma'ul qaydi Sidi marahama na jemte bafe genam nakrib Hamna iyo burmai jengeng geraku mulislam Sidi marahama na dole jengga boko qaydi xajul ci duniya xaaram di ko garde lañ laaj Sidi Bara Amane yàlla yónni suñu secrétaire bi ci réew yu Sudan Seydi Wujjoot bi wàcc na Sidi Bara Amane yàlla ñu jagleel ñuy paree kaw te dootuñ paree suuf Seydi Wujjoot bi bàyyi ñëw na Sidi Bara Amane yàlla ñu jagleel ñuy paree kaw te dootuñ paree suuf Seydi Wujjoot bi bàyyi ñëw na di fara am ma ne mbaala yi lu tuddam doon mbaale da yóbbu aljana si di mbar am jël na mbal ga mbaale soo daan waar mbaala yi lu tuddam doon mbaale da yóbbu aljana si di mbar am jël na mbal ga mbaale soo daan waale baraam ma baye ko xaybu xaalam ba mooy jaat malaaka ya si karam nag si di mbar am ma ne baraam wàcc fa alam mu oliya ndaw lu leer a leer malaaka ya si kar eetal Sini bara man roxo ya nekkoon sa buntu kilifa su jot ca baraam ñu ngi koy galante naan doo dem si li baraam ma ne baraam ma nga naan ñaanal leen baraam ma nga naan tànnal leen ba ma ñaanal leen déppa laafe nañ ma ba ca wàcce ca la ñu sant war na ruru da fe no so soodaan su di bara amane biddiw gitu baa nga naan subaana rabbi yàlla naa moom lu bo bëgg ma ko su di bara amale biddiw gitu baa nga khaybu dan daanu ci London pays Angleterre la ngi ngay wan ne mooy su di bara bu ci ci fo ci tuure lolo day sama ndaay karam yooma yëppa ko su di bara amane njaayan kaddi ja day sama daay yooma yu farsuna bu yón nan waree buraa jom xam si ni bara a mën a fàttaliku guddi lay lay nga layo ba min ka maa naan tub leen si ni bara a mën a naan tub leen de ba ma déyal mbóot dafay dellu ma la koot si ni bara a mën naan tub leen ba ma déyal mbóot jibril dafay dellu ma la koot si ni bay aji baaba kara ndongo yi tuub leen bu mi nuy jógee dañoo bëgg a dem si bi bara am na faya ci faara kraganaan ndongo yi tuub leen bu mi nuy jógee dañoo bëgg a dem si bi bara am na la koo dalee midi jom nag ba ca waxtu gee yaaram baa ngi boo si bi bara am na sëriñ mbay mi jonn Ababakar fa bi dal di kaddu kaddu gaa di nuuru rahmaan si bi bara am na saxoo leen siyaare ta da mokkal Madina kër baay ku dee dugeen dellu naasur Sidi a la taxoo leen siyaare te da mokkal Madina kër baay ku dee dugeen dellu naasur Sidi a la waaxaat jëkkëy ba ñooy bëgg a xal ku ne lu wet di yónnee Jibril ba mbarga leen ba njeex Sidi Barahama la lahum sëmuul ba ñooy bëgg a xal ku lañ wet di yónnee jàpp gileen moom gaay noosee loolu leen kaaree na doomi gileen nga xaaci ma ñetti yoon bis ko baraam jibril bombarde ba jeex si bi baraam ma ne suñu yoonu kër laayin fatim ja jox na ma maal bàyyi gën ca doom ja maayin si bi baraam ma ne suñu yoonu kër laayin fatim ja jox na ma maal bàyyi gën ca doom ja maayin si bi baraam ma ne sëriñ joojo bakka cam kër mbanga ñoo lab ci yàlla muridu sa biixi ñoo gëm sidi barhamana sëriñ joojook bakka camkan mbanga ñoo lab ci yàlla muridu sandi fi yuga sidi barhamana diggante kër jarga ak kër laayen lañu pinkon noonu ba jànga mel ni daaj bu jot sidi barhamana samal naa la prix bangor ba jëm ci sa sëriñ jooja dal sabal sidi barhamana samal naa la prix bangor ba jëm ca ñoom bàyyi gën ca doom ja di barama la bakkan ko naan ni jaay sëriñ waaku barama ngi tiim jandi ma tamat ndongol oh. di barama la bakkan ko naan ni jaay sëriñ waaku barama ngi tiim jandi ma tamat ndongol di barama la janjang leen karante te joore da lakk ni ndeet sëriñ sabal di barama la barama ko fetti marta bamba bandaanu jaaxaan bàyyi gën ca donte bàyyi di baraama ne baraama ko fekki mars bamba bam daanu jaaxaan bàyyi gën ca donte bàyyi di baraama amiril mominin nabi feeñ na cerewu toogaan mu boor baaxa leen lu mooy di baraama ne takk leen seen mas ba daw ñëpp di nga toog mbay kuy awaxal dangay di nga. li ba am na gay ngeen jëloon di war na def xàcc na. yaa dama am ko xanaa li nga nga am di nag la ci biir. li ba am na isim bu mag bi yaa yor lamb yi. yaa leen di may yaa ñaata leeral na la gën a mën. Sini kahang muna lang ng sito ulo ng tara. Bayan ka na yung gabi ng mga lalo pa ko yung mga tadi. Sini kahang muna ng sito ulo ng tara. Bayan ka na yung gabi waxaama na lu ma lekkee duur فآمن ما رسول الله فمن تجد صلى الله الباري وبالأخوة القدرية سيما أنا تفرقت الله سهل سهل وكل باطل فري وكل الباري وبالأخوة القدرية سيما أنا بين السنة الموفيين شكر فرق قربته وين منايك المجي ولا مجر في برما وين المنايك ولا مجر في برما يدور الرد في برما يدور

Iman amanet kuymayın yakın orada bitti ki. Çöptüğü yettiğini bırakın oradan kafam oraya. Şimdi ben amanet Şeyh İbrahim antroprenörlük. Moy kadima. Moy kadima. Şimdi ben amanet haramı bırakın tırtıktan kam. Bu kuyu kefam. Moy kadima. Şimdi ben amanet Şeyh İbrahim antroprenörlük. doonul toog ci naaj doon fan-fan lay yorante Sidi Ba Amal ak Ousmane la moo leen di rappal da yaa ma koy leetal Sidi Ba Amal ak Sadar soxna mu sa fixi secrétaire bi nga rafet boo may ci dal wax ci may wax Sidi Ba Amal ak Sadar soxna mu rim sa fixi amin man ne nga yor jubam sa ban Sidi Ba Amal ak Sadar soxna sa fixi يا بطل اليوم متوصل تسلم جاشية شنو الأمر في وعمر سورة كلام الله ذكر المدار يا يوم إقوال مدير وطر شنو الأمر طابع هو سنة مقامة لا يبني أقول هذا الإنسان وطر شنو الأمر هو الله أمر مثل الله يا سلام شبر أن يا بسم الله وطر سيدي أنا بقول نار تقول تبكي وما لنا تبكي دني دكتور سيدي أنا كمان بقول دوني سيندلي دني دكتور لا لا دني دكتور سيدي أنا بقول I'm not sure how I can buy something in the mother of the city. I'm not sure how I can buy something in the mother of the city. I'm not sure how I can buy something in the mother of the city. I'm not sure how I can buy something in the mother of the city. I'm not sure how I can buy something in the mother of the city. وكنت أعملكم وأنا يوم يكلكم لأجل القرآن ومن أنا كاتباتي سينما أنا أعمل الجامدين وهو يقدر يجبر جيد يا ربك فدم حالي لو جهام إني الآن يا ربك قال لي ذاتي لنين كي يجب أن تكون كتبت في الغيطان تنزاوي سينما أعمل yaa bulon xam bi barakaama anta mawlaay ni amal jaabi wa quraan sini baama mula rak rabbi yom hannaar bañee mbiraa ku seen baay booba barhaama nga ci biir sini baama mu waral leen naan jóg leen ko ñu dem ca xaaj bi noonu ndax ñu laaj ko ñu leen jóg leen doomi baaraam noonu mu ne leen sama gële bàyyi si di baaraam noonu mu waral ko naan jëlan bul soox daje nañu ga da ko bàyyi soxla silimaam amaan rabbee ko naan jële mag benn bët dajee na ñoom moom góor ga ne ko bàyyi moom la silimaam amaan ko naan jëleen bu gën ba dajee na ñoom moom góor ga ne ko bàyyi moom la silimaam amaan in ko naan yow jëleen bu gën ba dog nga ñuy góor ga de ko bàyyi moom laa silmaar am naa gaañaa ko naan doxoon ñu sa gileem gi sa góor lee gileem biir la silmaar am naa góor leen naan balaa ngeen góor doo dina métti laal baa ngi ko wane sama gi silmaar am naa góor ga daal di waaxu చట్టుకున్నాను యోగం కాదీకాకున్నాంటే మూడడియవు జలంలో గుండు గుండులో ఉండి చూచిన శనివారమ్మ మూడరంపన నెక్కి కంచి మోటంచి చూసి మోమని చూచిన శనివారమ్మ కాదీకాకున్నాంటే రబ్బీయవు jële Mansour boobu lu la wax ne jënd fële siriwaat amaan rabeen konaan benn bor yoon daan lekkee moo ma wax ne jënd fële siriwaat amaan jële mag ñaari bët buy lekk du lekkee ci benn bor ci ñaari bor yoon lay ko siriwaat amaan looloo ma joxaan jox ma këstu te moom a jàpp waay. moom moo di dund kër. Sibara naam. xaabi jànku na ne am naa yow. jëlee ma buubu lu la wax ne jëm ba daa dox. Sibara naam. xam naa ko naan. nee fa ji may xalaat ci benn boori yoon wi. moom la wax ne jëm ba daa dox. Sibara naam. jëlee mu am jéem. bu ne fa rek loolu koy jóor moo wax ba ma xaar yi jàpp naa ne il y a teew ma pour boobu lu la wax ne ko lu coor singaaram ma il y ma jële mu ومن برسول سيرام أمان قد جاكنا نلقاي دين دبرني كسو waaye gis mu sa jëleen ji sirimaam amaan booba lañ leen dalal reyal leen dàq sarw naan dal di jënd yi mburu jox leen gaañu waamaan gaañu lekk ba pare xool góor na dafa njaaraamaan jërëjëf jëf nga ngi neex na Sëriñ Bamba muram mu nangam ji dee neex na waaye gàtt bu ñu reyal dafa nàmp newoon kalbu Sëriñ Bamba rabben sarmi dafa samal loo ci xarmal Sëriñ Bamba xarmaaram ku nangam ji sarmi ci ko doon taxawaaye laabu si diwaamaan ibiyaat moom dafa wax pëj pëj loolu ñu sañu nga koy ci mbooloo si diwaamaan ibiyaat moom dafa wax pëj pëj loolu ñu man sañu nga koy ci mbooloo si diwaamaan kaabi jàpp naa ne mu nar yow gàtt bi ku la na dafa naa ko mulan manhat mulan kawan niya kay kaska boron da pala ko kalbo sinima ama boka ta tem ca dak ba nan ko wa man ka ta dak ko mo no tene sinima ama boka ko nan dak bi dafa tela bayo mo poppa jabal kulolelo batango wuro sewakilolo siribarama rabbe kunandi konane yarami yandi diis bamanuno jokkuyele ko siribarama naan dafay dindi tayal daldi yokko haal borom sa walla sa waxtu siribarama gorga daldi waako dem ci borom nanga nan ko wamankaa sa naan gogo namu demee borbe kunan hana kunan nangi rabbe gutah ta kuma harna na bai bachal hajle bugule ma sirwara tabi ja kunan na hanna ya guru bilan tarbi kulana ti ko don tarawaya ma sirwara ma hanna kunan mumune muru ban ku mumene dakka de ni ne sirwara ma góor ga daal di waa ko dem ca borom kuur ba naan ko wax ma gaaw sambur moomu na mu demee sinibaarama góor ga ko naan ma lay suma kuur bi jigéen a kay liggéey demal laaj ko na mu demee sinibaarama góor ga daal di waa ko dem ca soxna gaaw naan ko wax ma gaaw sambur moomu na mu demee sinibaarama soxna saan ko naan ba ba koy liggéey ba ba maa ci tiir booba man ci tiis maa ngi séntu ba ca xay boo siriyaarama kadi jàng naan jógleen boo miraasu seen bàyyi ne jëmmi xel ko baatin siriyaarama kadi jàng naan jógleen boo miraasu seen bàyyi ne jëmmi xel ko baatin siriyaarama كان للسيف من كرامة قوم وليس كذا يا سماء لا إله إلا الله

Amém. guardar قاتل غفر وسيف ظهر كشور من وجهك موجود عيناك غير بدون ثم ويلتك إذا يكون ربان شر من الذي رحمة دين الإسلام أبتدر أنك الرحمة يوجد تقديم قل قل يا أمة الإله نحن بالأيام تكون

Sembotan penyebab luka, Gawai dari nasib kerjaan luka. tetap mana baiki kita اخلاق وتجلد السيانات تغذب الموت تغرب الشرور حرام المسجر وتلبة البنات قامنا لأمام حالك من الناس أعلم قبل من مجاك الغام مثل الغرورة ورحم ميدان فيبقى مع الأيمة بدل الإنسان بدل الإنسان وتبقى عند بدل يرجوك المقام सभु बंगले करण मा कला Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, تكون تبين أول من مضحقان جرد حتى الكرسي ولا الحرام إلا وعلمت أن يحدث ولا يطعم وزرعون قلبين وقد بحر بسمون وجفن مدرس وزيعتنا فقد ضربنا بينهم الكرسي يكون على أن يجي تغيير السماوات والأرض المساجد والجندور هيبة تبطت للرجال الأعمال نعمة تلقيت فقير المسكين وقال ما في اليوم الظلمات ولأمك أمهات البيت الأعلام سليم الرب وبيت الظلمات الأمام غدت يمكن أن تتوقف الواو زخم الجميل وزخم عن سرطان قدم البدر الموت والرسال وزخم وزخمان والصلاة وعظيم يدعو الجزاء الأسود بشرت عاشق يا مدين وانما بشر محمود الصدران جبل داود ولحمد الانبار من مدرسون والفقر تقرم بغيوت والغير والحسار بكل شهر محصن العارف لما أتبعنا ويقال ومن يقول ويأخذ الناس ما لم يقول لا ويقول نظرها وتعرفين صداها أعلم المعتصمة وأيا لكم ما يريد المصطباء وأيا لكم ما يريد المنظوم وأيا جملة مشكلة إلا علم الصلاة فلا تنقصوا من الصحبان جملة الحقيقة وقد قاموا بالإنسان في أيام لذلك يسمى خبائث الوسائل من يتق الله عجائب في مسعد فسيرا من أثبت غير المؤمن مشى عن

اللهم اغفر اللهم اغفر الاعلام وثم لمسائل الايقلام برام لay ñaanal ci yàlla aw fanam mu gudd ak gudd dem ba àgg li moom moo ñu andil wan ba ñu ko jëfandikoo ci fii ba ba naa yëpp maa ngi leen bàyyi naa nga ma am réew maa nga leen suñu yaa ak ak yëpp Itulah surah al-Fatihah, beliau al-Qur'an. Soal mesti beliau sebenarnya jangan digunakan macam awal. Mana tidak kita keluarkan kepada orang orang sama yang ada. Waktu ada seorang yang berjuang أقول إذا صلاة إلى الصلاة بلدان مفتح بالذكر مدير يطهر بالذكر جبرت نفسي وقت لو تأخر جعفر جلو ناسي لا يقدر برامة بالبجوي تبعي البجوي نعم متى وقت أمين الغمرون من القناة باي بالبجوي تبعي البجوي نعم متى وأمين الغمرون من القناة باي وأمين الغمرون سوي وما يبقى البيه may gox na ngeen gëbal soxal ñu ni dara ma ko ma am ko ñu ko ma yanu la ñu ko na ko do ñu bi de jumé bi yu saat li yu de ci yu ba am ko la ko te dul ko bay yow su ba ne ne ne ba ta ba ma dara ma ko ma am lu no ko ma bu bi yo ba da ya ba da ya te ñam ma ko te dul ko bay yow yàlla mooy ki dara ka mooy ki lay jaral கிராத்துலர் கிராமோடு மையான umanda da kula da wanda ta ne munin kai munin jibin da ba ba ne ya Allah ne zai mutu da wani mun bakuna ke wannan ne kan magana ba ya Allah da ba mutu ne mun bai wa ne mai san da ko ko yo ba ma ko ta da wani jiko ne ba ko jiko ne ba ko yo ne ba ko Rasulullah SAW. Motor muslimin diberi Jangan mempunyai ketersamaan. Jangan kembali menawarkan. Sedang untuk kusir Rasul. Hendak ada wajib wajib Rasul. Jangan kamu menunjukkan bohong. Kimo diburu Muhammad borom. Dur borom. Temai borom. Kudu borom. Temai borom. Borom.

rabbil bariyati fi mooy buuri buuri mooy borom yow saa xare jeexal ci kii bu njëkk su kenn ku ci réer bàyyi ci sa taar bu rëy bi lañ jëloon yaa ñu nandal bañ la wedam ñii jooy na gis nañ suñ borom coy bii borom coy bii borom sëriñ bi mooy bunta borom màggal ko mooy bunta borom teral ko mooy bunta borom borom bi moo gën di borom nañ ci sa màggal suñ tey waaru naa ci bii borom Ibrahima ñu wax li lee ca tey ba ña seen déglul ma yi lee yow soo ko gëm ji teree saxal ci buntam suñ borom ruuxu bakkan dañ doon xuloo ma gaaw di xatte naan leen yéen baleen xuloo baleen déjuloo nan gaaw a tuqaw suñ borom bakkan bi man yow sa xarit bi lu digal bànneex bi mooy li lay digal wàññi yoonu jëm ci sa borom yow sa bakkar royor royor royor royor royor ci yoonu jëm ci sa borom yow sa xarit watul may tombog diggante da moolale da xaajale ka feenale damay andil mbugalam borom bu may dolli sa bakkan digal wattu ma nay ak ku tayal rëy ak kañaan dañuy xañee wattu ma yële ku ko borom soo defee da nga